actualité tolluwaay réew mi rawatina mais aussi parfois ak ay xibaar yi boppam Clédor kon fu ko neex génnee Clédor. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu lay delloo ziar. Euh, ak ñi hmm. yeewu nga ci jàmm. sant yàlla. na yàgg. amiin euh, tey fooy euh, tàmbale wala loo indi. waaw xam nga euh, mm-hmm. mooy toogaan bi toogaanu assemblée nationale xaar fan lay mujj mm-hmm. avec euh, la mise en place sa euh, commission d'enquête ah, mm-hmm. donc tey lañ war a par te yowoon ñoo baa ñi nga taxawu ak waa PAS bépp waa Yewwi mhm. nañu commission bi ñu def xool en plus maintenant de l'APR daf au sein de wat yido majorité ñu dégagéw ñu leeral tuuma yu rëy yëkkati teg ko ci ndodd euh, magistrat mhm. donc euh, euh, ñu xaar mais wàllu bët mooy li euh, procureur dafa ignorer plainte conseil constitutionnel waaw plainte euh, euh, magistrat Ndiaye pour défendre en fait parce que à travers c'est le conseil qui réclame parce que ñaari moom magistrat mais moom moo léegi le fait que procureur ñëw plainte est-ce que dina continuer di rendre motif non applicable euh, la commission parlementaire kooku interrogation euh, bu fekkee ñu am moom déggante bi dese naa neex de dese neex waaw allo oui yéen may dégg. léegi ñu ngi lay dégg. voilà donc je disais que li bees mooy. Mhm. Euh, on apprend que le procureur ignore la plainte du magistrat Cheikh Ndiaye. Mhm. donc bu ñu xamee ni plainte dafay am effet suspensif des travaux de la commission euh, d'enquête parlementaire. Mhm. mais est-ce que bu procureur ignorer plainte magistrat au conseil constitutionnel bi. dana continuer am effet suspensif ci travaux assemblée nationale kooku c'est une grande interrogation donc le procureur c'est un magistrat comme waa conseil constitutionnel mais dafa am particularité représenter le ministère public donc l'état l'exécutif incarné par le président Macky Sall kon kooku tey bu deful acte de solidarité ci collègue am ça il faut le dire parce que xam nga démb yaa ngi naan pourquoi procureur autosaisirul non seulement autosaisirul mais on se réveille avec l'information selon laquelle dafa ignorer la plainte déposée par euh, un membre du conseil constitutionnel kooku c'est comme si on veut laisser dérouler l'assemblée nationale sans entrave loolu Euh, lu xaawal doy la loo xam ni lii yëpp nag ça vient de l'exécutif c'est-à-dire du président Macky parce que moom moo mettre à disposition ses députés c'est dommage de parler ainsi dans un pays démocratique parce que les députés sont censés être indépendants de l'exécutif mmh. mais ici c'est le Sénégal donc moo instruire ses députés euh, d'aller dans ce sens-là euh, d'une commission parlementaire pour corruption de certains magistrats te li ci xaw metti bopp mooy ñu ngi ciy cité benn jege ñaaleem ki Farba Ngom on comprend rien du tout ak son son supposé candidat Amadou Ba bi nga xam ne euh, c'est à lui que profiterait euh, tout cela donc fi mu nekk nii euh, farata sax enfin euh, souhait la pour ñu leeral lii mhm. parce que lii je crois que musul am pour yu toll ni ñu teg ko ci ndodd conseil constitutionnel mhm. ci ndodd ay magistrat mhm. kon tey c'est un jour décisif dañu xam ndax commission bi dina jàll wala du jàll mais le fait que magistrat yi di anticiper euh, en disant que ñu wuyu ji commission boobu ça présage que commission boobu dina taxaw parce que ñoom nee nañu duñu wuyu ci mhm. voilà c'est comme si comme Mansour Faye rek ci mhm. ci ceeb ah covid 19 bi mu mu moom wuy jiwul of nag te xaaru sax ñu woo ko buñ wax du ma wuyu ji of nag kenn woowu ko <laughs> ñi ñii tamit kenn taxawagul kenn taxawalagul euh, commission d'enquête parlementaire nee nañu duñu wuyu ji voilà donc il se joue une guerre mhm. entre deux institutions te mais fàttaliwaat comme ni ñu ko waxee démb. que mhm. selon l'article quatre-vingt-huit ñoom ils ne sont plus revêtus de leur manteau de magistrat euh, moo tax ñu doon décrier PDS doon doon doon décrier euh, communiqué de solidarité bi jóge ci UMS mhm. donc loolu c'est un premier problème mais man je me demande où UMS était ba ñuy refuser l'application d'une décision de justice c'est-à-dire la décision du juge Sabassy Faye DGE taxaw ni du ci du ko jëfee mm-hmm. boobu ana UMS ba ñuy jëlee conseil constitutionnel un magistrat sans avis conforme du conseil constitutionnel parce que magistrat dafa am nu muy jógee conseil constitutionnel mm-hmm. Macky jël décret rek ci saa si rocci fa kenn teg fa Sénat loolu jalgati la même si après jéem nañ ko dabaatal sax daal di produit benn avis conforme loolu day woon rek nay mise di Macky Sall am ci institution yépp su bëggee ay député jàppale PDS jàppale ko su bëggee dagg bopp benn magistrat mu dagg ko bu ko bëggee déplacer en point A yóbbu ko en point B comme un pion mu def ko dans la même journée un simple décret donc une signature donc lii moo tax ñu ñu ngi xool avec beaucoup d'attention fan la waa nañ ci di mujj ak ay gëtëm parce que ce qui est sûr mooy assemblée nationale warul mën a entendre ay magistrats quand même ci commission d'enquête parlementaire euh, magistrat am nañu seen seen kuréel interne buy traité de, de cas de discipline et, de, de, am au sein de la magistrature mhm. magistrat dafa am unité judiciaire am privilège de juridiction mhm. donc ñoom mënoo leen attraire comme ça euh, devant une commission d'enquête parlementaire léegi ñoom tamit porté nañu plainte seen collègue magistrat c'est-à-dire le procureur bëgg ignorer plainte bi aussi te xaw ma loolu fu ñu ko teg moom bu auto saisirul kay suñ ko saisiree d'une plainte <laughs> da ko war da ko war a activer mais dans quel pays on est. léegi Clédor. oui. Euh, ci loolu lépp yow ndax gisoo ci ne euh, président Macky Sall dafa toog di seetaan. parce que quoi qu'on puisse tey. non dafa dafa dafa manœuvrer seetaanul de. seetaanul. c'est lui qui tire les ficelles. Ah bon Mais le procureur, il obéit à qui À Macky Les députés de Benno Bokyakar, ils obéissent à qui À Macky Sall. Mais quand on porte euh, des accusations graves à l'endroit du Conseil constitutionnel, qui auront jëkk taxaw pour défendre Conseil constitutionnel, mais mooy Macky Parce que nous tous, on a, on suspecté le Conseil constitutionnel, mais de rouler pour Macky Sall. Kon il serait tout à fait logique moom mu défendre moom mi nga xam ne mooy le protecteur des institutions de toute façon mm-hmm. mooy le